salaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin il amin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurr almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bako jëli di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh gannaaw bi nu santee sun borom subhaanahu wa julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ndokkeel julli yépp ci bisub màgg biinu bàyyi di yow mu iidil fitr di ci ndokkeel jullit yépp waaye di balu ñépp xaq te di ko baalit ñépp ñaan sun borom li nga xam ne moom la nu ko tooñ moom sun borom ci ay tooñ yàlla na nu ko jéggal ci yërmandeem li dox ci sunuy diggante noonu jaam ñi ci ay xaq yàlla na nu ci wutu fayal nu ko fa innahu jalla ala taaka qadir wa bi ijabati doa da an jadir waa ñaan si Muhammadun li muntaqa sun ba mbayil nu ko fi baaw fanam doon kiimaan ci mboolem jullit yépp balim naa la Sëñ Tuubaa yéene ko ko liggéey lépp mu sotti coleet ci teewaayam tam jiite ko lu yàgg yàgg yàgg te lépp na ànd ko moom tamuy dolli ko ngërëm bi Serigne Touba am na sax na ngërëm bi Serigne Touba waaye ngërëm yee dolli ko waxtu nekk dañuy ñaan ngërëm bi Serigne Touba dotti ko ci jëmmam ju tedd ji ci gépp yëngoom ak gépp dalam. xam ngeen ne ci weeru koor lanu bàyyi ko weeru koor nag su jeexee. ab julit war naa am lum mu ca jële yaari yëf lu gàtt-gàtt war na caa jële yaari yëf muy ak texe ak ni ko Sëñ Tuubaa ñaane ci weer wi di wax ne inni uhibbuka hubba dhati ta talabin min maliki fika isaadan bila awadi ku la bëgg laa yow weeru koor te sa jëmm rekk laa bëgg tey sàkku ci sama borom nag di sàkku ci sa biir ci sama boroom ak texe gu àndul ak njubadi mooy kon ak texe ak njub loolu na daf bu koy ñaan daf nu ci jàngal rek ne ab jullit war naa am dogu ak pas-pasu saa tàbbi ci weeru koor am góor-góor yéene buy génn ci koor ga génn wala génne wàll ci ak texe waaye génne wàll ci ak njub ak texe nag mooy nit ki am yërmande yàlla am njéggalug yàlla ak mucc ci sawara te yéen sa yéen saa soxna waxoon na ne awwaluhu wa wasatuhu maghfira wa axiruhu itqu min an naar koor xaaj mu njëkk bi ñuy fukk fan yu njëkk yi yërmande la yi ci digg bi di njëggal yu mujj yi diggoore ci sawara muy mucc ci sawara kon ko tàbbi ci weeru koor sàmmonteeg war ma joo ji mu làmboo te jëfi ko nam ko ware mën naa tax bi génn ca koor ga génnaale ceeg texe texe googu sëñ bi di sàkku ci ci gi su dee ak njub nag li ëpp ci liy gàllankoor ab julit ba dox diggam njub li ci ëpp ci bakkanam lay dellu ndax inna nafsa la ammaaratum bissu bakkan moom ci lu ñaaw rek li njot di borom jëme te sintubaa newoon na bakkan amul benn jéng amul benn tënk buñ ko mën a tënk buñ ko mën a téye lu weesu xiifal xiif su jaam bi xiifalee boppam nag xiifal bakkanam ci koor mën naa dem ba ngalaab ba kanam war ba baax lépp jàppandi ko topp ndigal jàppandi ko moytu tere jàppandi ko su ca saxee weeru lëmm nag mën naa dem ba noot bakkanam kanam noot nooteel gu wér ci topp ndigal ak tere ba weer yu matee mu làq ca ragal yàlla te ragal yàlla nag mooy nati jëpp listiqaama maanaam ki amul njub listixaama mooy ragal yàlla koy jural ta ragal yàlla googu yi moom moom rek la moom rek la ko la ko di jariñ ndax la motle ay ji mooy laallakum tattaquun li tax ma farataal ko ci yéen weesu lu may tax ngeen ragal yàlla ngir ngeen ragal yàlla kon loolu rek la war a jub la war a jur kon dafay jaadu kon ci jaam bi kon mu amuk dogu ci biy tàbbi ci weer wi rek am yéene suy génn génnaalik texe waaye génnaale ak njub lay tax lool jàppande ko nag mooy muy jiital ak tuub ci mbir yépp jiital ak tuub te yeesal tuub gi waxtu nekk ndax suñu wax ne ma waxtu ne dafay fees feeñal ak tuubam ci biir koor gi daa batin fiika aydan maadiyan abadan bi dhikri wa shukri wal qur'ani lil ahadi damay boromuk tuub ci sa biir yow weeru koor euh, la lépp waaye boole ko nag tudd yàlla ak sant ko ak jàng alquran bu ko dem boole ci nag génn ci lépp luñ ko tere moytu lépp lu jur bakkaar waaye dogu ci jëf lañ ko digal nañu ko ko digale loolu mooy tax suy génn ci weer wi génnaale ak texe waaye mooy tax itam mu mën a génnaale ak njub la jële ci koor nag xam na ne koor ibadatun ruuxiyatun wa badaniya te jaam yàlla goo dafay làmb yaram ak ruux jaam di sàkko jeeg borom subhanahu wa taala waaye nag mu am mbir yu bari yoo xam ne kii jóge ci koor war na ko caa jànge war ko caa jëlee li ci nekk mooy war na caa sàkko ngërëmal yàlla war na caa sàkko ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla ragal yàlla ay tax nit ki mën ko am kon fekkee ne def na lam lañ lañ ko sant def na ko nam ko war defee ba dana ci ragal yàlla ragal yàlla mooy la ko la ko jural nag la koy jural ngërëmal yàlla lool yi wan na ca itam tàmmi ak topp yàlla ndax ku ne xam ne bu koor dikkee jaamu yàlla yëpp dañ ko yokk di taxaw ci guddi di naafila di jéem a tàmm joxe te yàlla tax ak yu baree bare bari bari kon topp yàlla ci boppam topp ndigal bàyyi war na koo tàmme ci koor ba bu koor gi jàllee mën ko wéel ndax du caagi koor rek bu koor dikkee rek jaamu yàlla xew na bu jeexee jaamu yàlla jeex na ni ko ñu bare bari jàppe na bu koor jeex jeexee jege ñu tàmbalee sellal jigéen ñu tàmbalee muuru daal di fëggaat sijaada yi fëggaat kaamil yi tàmbalee feesal jàkk yi waaye bu koor jeexee loolu lépp tàmbali tàmbali dellu gannaaw kon demel kon dégguñu dégguñu dëgg-dëggi koor e, julli bi di ci yaakaar yitam yàlla jéggal ko la jiit woon lépp di ci mébét ak gore ci sawara ak texe ci tabbi aljanna te sunu ba mënu ko mënu ko digoon man saama ramadana imaanam waxti saaba wufira lahu ma taqaddama min danbi képp ko xam ne woor na weeru koor te gëm yàlla rek la ko fàggu tiyaaba la jiit ci bàkkaar lépp ñu jéggale ko kon da fexe ba set gi nga génnaali ndax ku ne xam na ne bu la yàlla jégalee la di jiitoon lépp kon set ga wicc ci bàkkaar dañu bëgg bu koor gi jeexee ne set ga wéy mooy nga bañ a taqaat gannaaw set ga wicc fexeel ba bul taqaat lay tax doo taqaat nag mooy di yeesal ak tuub waxtu nekk tey góorgóorlu loo man ci lu baax la nga nekkoon ci koor gi ci lu baax lépp ko bañ a dagg benn yoon koor nag dafa nekk lu lu lu lu lu rëy fa yàlla ndax la sunu Boroom waxoon ci xadiisul xudsi ne jëfi doomu aadama ju ne moo moom jëf ji moom jaam bi ba mu des koor kon moom man yàlla maako moom te maa koy fay sama bopp dëgg-dëgg yàlla moom yàlla moom jëf yépp yépp yàlla leen moom waaye su ca seetee lenn képp ne lii maa ko moom kon day wone am soloog loola màggoog lola ak rëyug loola ba ko ñaareel mooy war nañ caa tàmmee ak sellal ixlaas jëf te yàlla tax ndax jépp jëf ju sellut yàlla du ko soxla yàlla lu sell lu sell la tayyiban laa yuhibbu illaa tayyiba yàlla ko tey la talu tey rek la bëgg

محمدا comme suñu boom jëf ju sell rek lay lay lay nangu moo tax kon sellal googu war nañ koo jéem a tàmmi ci suñ ko jëlee mooy tax texe gañ ca yaakaar ñu mën ko ca jële loolu di dëggal rek yéen saa sama yéen saa sama waxoon ne rubba qaa'imin xadduhu min qiyaamihi as rubba saa'imin xadduhu min as al-juu' wal-'atash loolu ñàkk a sellal moo koy waral banaana ko taxaw fanaani fanaani naafi la te taxawee du ci jëli lu may coon coono dong baraana ko woor te du jëli ci koor ga lu may xiif ak mar dong loolu ñàkk a sellal mooy mooy yóbbee loolu waaye sellee nag mooy tax suñu doon nangu mooy tax mu njariñ mu def suñu waa doon fawr ba saay maal jamaa lay suloo fii si wal ma jamaa kon ixlaas mooy sellal ab ponk la bu dëgër boo xam ne nit ki war na koo jànge ci koor mokkale ko ci boobu koor ga jàlle man ko wéel ba ko ñetteel mooy war nañoo tàmmi ci koor ak muñ doomu aadama wala julit dafay tàmmal bakkanam ak muñ muñ xiif muñ awmar muñ bànneex yi ba mën a ñoŋal bakkanam man koo jekku ndax ci eh, ci looy mën a mën a jekkoo bakkanam man koo not dëgg dëgg dëgg dëgg salaasa mi wax ne sum chehra sabri wa thalathata ayamin min kulli chehr yudhib na waxara sadr na woor weeru muñ wi foofu weeru muñ la ko tudde sax nangay ngay woor weeru muñ wi ak ñetti fan gannaawam ci weer wu nekk daana dañal Eh, gàkk gàkku xol coonay xol ak i gàkkam ak i tilim tilimam loolu daf koy setal kon muñ mooy ngànnaayal aji woor ci lay mën a laq eh, lëkkaayoo la sun ba ne daanoonu mat matalal way muñ seen yool ci lu muy ànd ak benn genn regle ba ko moy mooy euh, tàmm ci ay ay ay ay sacrifice ndax ki woor leel daana sacrifier ay aw ñamam ako naanam euh, alalam di ko def ci yoonu yàlla waaye itam euh, la la ci la koy misaal li ñu tuddee sadaqatul fitr muy muurum koor mi nga xam dañ ko joxe ci mujj koor gi ak sarax yi nga xam ne yooyu coobarewu la lépp ngi sàkku yool fa yàlla azza wa ak sàkku tiyaaba te mbir moomu ay ahadis yu bare bare bare ci bokk ca la yoon saa sama waxoon ne siyaamu wal quraan yashfaan lil abdi yawmal qiyaama koor ak alquran dañuy ràmmu jaam bis koor gi danaa ay sun boom kii de maa ko tee woon nelaw guddi alxuraan mooy wax loolu waaye koor koor koor day wax ne sun boom kii de maa ko teew maa ko teew teewoon lekk bëccëg tee ko naan ba tee ko bànneexu kon ne rek waay tin ma ci moom alxuraan ne kii sun boom kii de maa ko teewoon nelaw guddi ndax taxaw gi mu daa taxaw di kon rek waay ci moom sun boom leen ñu bokk la ram nga tabbi aljanna imaam ahmad solo xadis boobu ak tabaani kon dafa am ay sacrifice yu ci nit ki def ci ay mbir yoo xam ne bakkan da koy bëgg lépp nga sàkkoo ko jege yàlla subhanahu wa taala mooy danga nga sacrifice sa bakkan sa alal sag lekk sag naan say bànneex loolu mooy jikkoy aji waaye mooy melukaan itam kuy jihaad ci yoon yàlla te mooy cosaanul ci lay nit ki mën a amee ngañaay ci lay mën a gañee bànneexu bakkanam bu dee kay xarit yoon daal ci lay mën a gañee ay noonam ku munta gañee ba bànneexi bakkanam soo xeexaana ko noonam yi dañ dañ koy gañe kon bo kon njàmbaar ma ngi tàmbale ci mën a not sa bakkan kon yooyu yëpp bokk ci yi nga xam ne kon aji woor wala kii woor war na ko na ko jànge ca koor ga gannaaw bi koor gi jeexee nag suñu defal nag bis boo xam ne bisu iid la bis boo xam ne dafa làmboo ay mandarga yu bari ci mandarga yi diine lislaam nekk ak ak jaamu shaira bu mag a mag ci ay jaamum yàlla subhanahu wa taala ngan dafay taxañu ci gannaawam ay maani ak xikam ak ngëneel yu baree baree bari la njëkk mooy bisu sant yàlla la julli de ci sant yàlla ci ay xéewalam defal na ko xéewalug wér la jiitu mooy xéewalug fekke am nañu fekkul ko ru ren am nga xéewalu fekke ko bi fekke fekkee mu defal la xéewalug wér ba man koo woor na ware defal la xéewalug kàttan ak la nga la nga mënti ñàkk lépp kon cant googu nag dafa war a feeñ ci wax feeñ ci jëf waaye ci feeñel mbégte akuk dal ak nag tasaarook wéttili ko akuk boy boy gi mooy yéen le tënkoon yëpp tink nañ la ca cay dagan yëpp tënkoon nañ la ci lekk ba cëg naan ba cëg tink nañ la ca tënkoon nañ la ci dagan ci yow yu ci bari léegi tink nañ la ca waaye da da cay da cay làqoo itam da cay nëbboo maanaam fisuk fisuk way womal ci kanamu aji ñàkk ak wute seen biir nekk bis wax dafa lamboo ay maana yu bari ci nit ki ni nga xamee ne kàttanuk aji woomal da cay dajeek néew doole aji ñàkk ci cofeel gay am seen diggante yërmande ja maandu ga loolu bokk ci la ci la koy fisal mooy sa sakatu fitr yi bi ma junjoon léegi nga xam ne dafay bàyyi ci way woomel yi jëm ci way ñàkk yi ak yaatal gaag rafetal gay dox seen diggante nekk it forsa boo xam dafay fàtteloo aje woomal ji euh, takalluf bi nga xam ne am na ko ci alalam nga xam dafay toroxlu ci kanamu yàlla ak ci kanamu biddeef yëpp ci fàttaliku ay bokkam ci di leen dimbale te yàlla tax nga xam loolu da koy faral ñaawtee fi at ma wéy nekk fursa it buy dàqal aji ñàkk ji ay njàqareem ak ay jafe wadi waaye di ko fàtteloo ay coonaam waaye di màndargaal ci xar kanam ak ngërëm dal di ko dàqal ya nga xam ne moo koy moo ko jural naagu ci jur yaakaar yaakaar e, e, ju tey ju ju tey ju ëllëg yaakaar tey yaakaar ëllëg waaye it ci maanaam boppam e, nekkul lu tënku waaye dafa wala dafa dafa dafa dafa làmb dafa nekk ci gën tënku akuk boy tënku ci toroxlug bakkan ak ak ak i cër waaye boy nag ci ubbiku mboolem ya daganoon yëpp nga xam ne ab do eh, eh, jamono la yoo xam dafa fàttiloo ay njàqare ay jafe-jafe di dàq itam ay ay ay coonaak ya nga xam ne bakkan da koy xalaat yëpp ci ci ci li ko jural jafe-jafe waaye it nekk bis boo xam dafa dafa dafa dafa takko ay jaamu yàlla eh, nga xam ne ci la nga xam ne day wane jeexu chehru ramadan weeru tedd mooy jaamu yal gu la yàlla santoon nga defe ko nam ko santaane ba mu ba mu sotti mu defal feet googu ngir nga fàtte coon yi nga xam ne moo ca weesu waaye itam bu dee iidul adha mooy bi tabaski dafa dafa takk takkaayoo ak manasikul xaj nga xam ne gu ci nekk dafa am jaamu yàlla gum gum gum bu dee koor dafay dafa lëkkaloo jaam yàlla koor su dee tabaski dafa lëkkaayoo ak jaam yàlla ak xaj waaye iid itam am jagle yu mu jagoo yoo xam ne ni dañ ciy bëgg julit bi wuute caag ñeddul julit cay defin moo tax kon dafa làmboo ay ay ay ay bu dee baatu iid maanaam mi dafa dellu ci lépp luy baamu di des del siwaat moo ñu tuddee ko loolu dafa desi at mu nekk indaale mbégte mu bees jullit ñi nag amuñ lu may ñaar ñaari iid rek iidul fitri ak iidul adha ñu yoonal iid ngir sant yàlla ak wuuteeg yéefar ak musrikun yi ci seeni ci seeni feet ñu xadis ba anas solo wax ne yéen saa sa madina xaadima rasulullah saa sallam almadina walahum yow yow fihima fa xaala ma haadaani l yowmaan xaala kunna nalabu fihima fi l fa xaala rasulullah saa sallam inna allah xad abdalakum biha bihima xayran minhuma yowma al adha wa yowma al fitre dafa madina am ñaari bis yoo xam ne dañ koy feetu mooy leen ñaari bis ko bis la suñu bis dañ ci fo ci jamonoy ceddo ga mu leen yàlla wotteel na leen ko yeneen yeneen ñaari bis yu ko gën te mooy bisub iid bisub kori ak bisub tabaski kon kon sant yàlla la ak wuuteeg ñañ bokkul diine yàlla na suñu nangul koor gi del si del eh, ko ci noonu ay ate at nu di ko fekke te ànd ko wér ba di ko matal ni mu ware te suñu bam dina ko nangul nangal na mboolem jaamu yàlla yëpp rek koor geeg jaamu yàlla yoon ci biiram yëpp yàlla su ma nangal na ko del bawa ñaan del delloo ñaan Seex Amadu Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool defal nu kiimaan ci ak ci aw fanam wéeral ko lool mu sotte lépp te gën a dolli ko ngërëmi Sëñ Tuubaa ak Seex Ahmadu Xaadim kànno bi kenn bi raxal Xaadim yàlla suma mbool dimbale mbool defal tawfiq xëy nu ci njub te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibi Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangal sunu taalibi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu anna muhammadan rasuulullaah ashhadu an laa أشهد أن لا الحمد لله الحليم الغفور الودود الشكور الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وعظم هذا الشهر حيث جعله فاتحا لشهور الحج المبرور أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور أما بعد فيا عباد الله اشكروا الله فالرابح من شكر واشغلوا ألسنتكم بذكره فالسعيد من ذكره واقصدوه في طلب الحوائج wa huwa karimun laa yuxayyibu man qasada wattaquu yawman yuuxadu fiihi binnawaasi wal aqdaam wala taquluu dahaba ramadaanu fa tastaxilluu fi'lal xaraam واستقبلوا هذا الشهر بما يرضي الملك الخلاق وتقربوا إليه بالصدقة والإنفاق وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وفي الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس في أزليته فلا عين تراه وقسم الأرزاق بين عباده هذا منعه وهذا أعطاه وهذا أسعده وهذا أشقاه أحمده على ما أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد أنبياء وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاه أما بعد فأوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقاه وأحذركم عن المعاصي وقد خاب من عصى مولاه ولازموا طاعته ففي طاعته رضاه وآمركم بتعجيل التوبة قبل أن يبلغ الأجل منتهى وهاروا زمانكم هذا فإنه زمان قل خيره وكثر بلاه واشتغل كل منا بطلب دنياه فوا أسفا وقلة حيلته في يوم تظهر فيه الفضائح وتشهد علينا فيه الجوارح والحاكم هو الله yowma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yowma idin lillah wa fi lxadiisi irxamu salaasatan ganiya qawmin iftaqar wa aziza qawmin dhal وفقيها تلعب به الجهال يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 الله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 allah allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana walakal hamd allahu akbar allah asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.